revue de presse bi ñoo ngi ciy ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare Serigne Cheikh Ndiaye nag sëdd la ci Serigne Daaru Assane Ndiaye nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal moom nag dafa am ñetti garab yoo xam ne daf ko bëgg a jagleel askan wi ndax baax na lool ci wér-gi-yaram ñetti garab yooyee nag benn bi miin ngeen ko muy gaynde gu góor gi waaye kat dafa am yeneen ñaari garab yu ca ko benn bi nag jabet lay faj nee na ma nag képp koo xamante ni am nga tawat boobu ñu naan jabet boo jëflantee ak moom di ca am lu kawe sa njortu bi nag moom hémorroïde lay faj nee na ma garab bii baax na lool ci hémorroïde waaye moom yemul ci réew mi ndax ay bànqaasam law na ba Europe waaye bànqaas yooyee jéggi nañu Europe dem ba Amérique du Sud bu dee ca Europe moom dëkk yi may waaj lim képp koo xam ne foofee nga nekk yittewoo ci garab yi rek jàppal ni Serigne Cheikh Ndiaye am na ndaw lu ko fa teewal muy ca France Italie Espagne Allemagne Angleterre waaye ca Amérique du Sud tamit dëkk bu ñu naan Brésil am na ndaw lu ko fa teewal ba ca Argentine waaye yemul foofee képp ndax ca États-Unis tamit am na ndaw yu ko fa teewal kon képp koo xamante ni yitte woo nga garab yii rek mën ngaa woote ci numéro bii may waaj a lim muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 ñoo ngi ñaan képp ku jokkoog moom rek yàlla na sa aajo faju ci barke maamam di sëriñ daaru Assane Ndiaye door revue de bi dooree ko stade yéenekaay équipe nationale bu Sénégal le journal bi fësal ca wu njëkk wa tey jii bu 19 heures jotee dañuy jàkkaarloo ak réewu Rwanda match boobee nag mi ngi soxal éliminatoire CAN 2024 di amee ci réewu Côte d'Ivoire nekk juróom benneelu bëccëg waaye tamit mooy dernière journée maanaam bëccëg bi mujj jëm ci éliminatoire yooy équipe nationale bu Sénégal nag jamono jii ma nga ca réewu Rwanda match bi nag duñu ko footballé ca Kigali dëkk bu ñu naan wuy nekk ca réewu Rwanda foofee la ñuy amalee match boobee match boobu nag solo si taxul mu bari lool ci ñaari équipe national yi bu dee équipe nationale bu Sénégal moom qualifié na ba noppi naam équipe nationale A bi la waaye mag ñi duñu ko jongante gone yi ñoo koy jongante bu dee Rwanda ñoom toog nañu ba noppi war a jongante ci ndax éliminé fàttewul latéral yu équipe nationale bu Sénégal ndax kat am na kujje gu fa am bu dee ca latéral droite ba moom ka fa nekk di Youssouf Sabali moom amul kenn ku mu mën a kujjeeg li ko waral moo kat file ak mi ngi wér moom mooy football li koy firndeel sax moodi trente et un match yi nga xam ne football na ko ak équipe nationale bu Sénégal yëpp daf ca départ titulaire maanaam moo door match boobee moom Youssouf sabali bu dee ca wetu càmmoñ nga moom muy latéral gauche ba moom kujje gu saf sàpp moo fa am ñaar ñii ñoo fa nekk muy Abdallah nduur ak Ismail Jakobs bu dee Ismail Jakobs moom bi mu ñëwee bees ci équipe national bi mi ngi doon doxal waaye jamono ji nag dafa am wujju wujju woowee du kenn ku dul Abdallah Ndour match yi équipe nationale bi mujj am Abdallah Ndour moo dugg doxal moytuwul nag bu ñuy jàkkaarloo ak Algérie moom mii di Abdallah nduur mooy départ titulaire li ko waral moo di Ismaïla Yacob su amul temps de jeu bi saison bi dooree ak tey jii clubam di AS Monaco ñaari minute képp la football foofee kon ñoom ñooy xëccoo latéral gos boobee muy Abdallah Ndour ak Ismaïla Jakobs bu dee ca latéral droite ba moom am nañu ko fa nekk muy Youssouf Sabali file ak mi ngi wér mooy départ titulaire doxal Belmadi mi tàggat équipe nationale bu Algérie tamit mi ngi ci journal bi moom nag mi ngi wax ci match bi war a dox ci diggante Sénégal ak Algérie le 12 nee na match boobee nag match personnalité dëgg la li ñu war ñun waa Algérie moo di jëmbat fu la doxal ca match boobee ndax xam nañu lu ñuy xaar ca stade de maître Abdoulaye Wade Belmadi mi tàggat équipe nationale bu Algérie moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Sénégal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Gareth Southgate mi tàggat équipe nationale bu Angleterre ak seenu capitaine di Harry Kane la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa gëm leen seen bopp su ngeen gëmee seen bopp waxuma euro waaye coupe du monde sax mën ngeen ko jël loolee nag du samay kàddu kaddu Gareth Southgate mi tàggat équipe nationale bu Angleterre la tey jii dañoo am match bu mag ñoom ak Ukraine ñooy jàkkaarloo match boobee quatre heures lay door Gareth Southgate li mu xamal gone yi ànd ak Harry Kane moo di gëm leen seen bopp te soppi seen i xalaat ak seen i bëgg-bëgg maanaam seen mentalité ngeen war a soppi loolee su ngeen ko amalee rek di ngeen def jaloore yéen gone yii may tàggat Gareth Southgate moo xamle kaddu yooyu tey jii nag li ñu bëgg moo ci kaw Ukraine am a bopp ci éliminatoire yooyee ndax ñoom ñeenti mat la ñu jongante am ca ñeenti victoire kon tey li ñu bëgg moo di am ndam gën a dëggal seen bopp ci fàttali Gareth Southgate nag mi ngi amal liggéey bu ama am solo ak équipe nationale bu Angleterre yóbbu na leen final euro waaye daf ko ñàkk waaye coupe du monde bi weesu dem na ba demi final waa France ñoo ko éliminé jamono ji nag li mu bëgg moo di jël coupe ndax réewu Angleterre moom gëj nañoo jël coupe lool loolee la journal bi xamle ñu jugee Londres Angleterre wutali Portugal fekk fa oxogo équipe nationale bu Portugal rawatina Bruno Fernandes la journal bi fësal ca wu njëkk réew démb nag ca Eslovaquie bu ñoom Skriniar la ñu demoon am fa ndam lu ama am solo benn bal ci dara la ñu gagné Bruno Fernandes moo dugal bit ba am ca match boobee juróomi match la ñu am nag ci éliminatoire euro yi am juróomi ndam muy waa Portugal bu dee Cristiano Ronaldo moom dafa départ titulaire ca match boobee waaye laata muy jeex am na carton jaune kon ñoom bu ñuy jongante ak Luxembourg altine moom Cristiano Ronaldo du mën a bokk ca match boobee li ko waral moo di carton jaune bi nga xam ne am na ko démb waaye ki leen di tàggat di Roberto Martinez moom kenn du moom ndax bi mu ñëwee ca équipe nationale bu Portugal ak tey ji amagul defet juróomi match la fa jongante am juróomi kenn du moom ci fàttali moom moo doon tàggat équipe nationale bu Belgique waaye bi coupe du monde bi jeexee la ñu ko dàq mu dem ci équipe nationale bu Portugal muy doomu Espagne bi waaye jamono jii moom Roberto Martinez mi ngi amal liggéey bu ama am solo ak équipe nationale bu Portugal loolee la journal bi xam xamle ñu jugee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay équipe nationale bu Espagne rawatina gone yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa lii nag mooy footballub Espagne loolee kaay xamle li ko waral moo di démb dañoo fekke woon joueurs yi gañe ko juróom-ñaari bal ci benn set un la match boobee jeexe waaye match boobee nag kenn du ca attaquant Atlético de Madrid bi di Alvaro Morata dafa triplé ñetti bit la dugal ca match boobee gone gii ñu naan Lamine Yamalit dugg na football minitam yu njëkk ca équipe nationale bu Espagne mooy gone gi gën a ndaw nag am at yi mu am dugg ci match soxal équipe nationale A bu Espagne waaye yemul ca dafa dugg dugal ab bit kon moom dugg na ci taarixu footballu Espagne journal bi nee na problème yi nga xam ne amoon na nag ca fédération ba jamono jii yëngalut soor yi ndax gone yi démb doxal nañu doxantu ci kaw joueur ji am ndam lu yaatu lool waaye surnal bi tamit ñëw na ci waa Real de Madrid ñoom nag bu ñu amee ndorte saison bu baax bu ñu ko santee kenn ku dul ki leen di tàggat di Carlo Ancelotti ndax moom jàmbaar dëgg la dafa soppi système mu Real de Madrid maanaam taxawaay bi club boobee doon taxawee da koo soppi te match nag buy door da koy door ak 4-4-2 waaye bu demee ba ca digg ba mën caa amalaat ay coppite loolee bokk na ci li nag waa Real de Madrid amal ndorte saison gu baax kon nañu ko ko sante loolee la journal bii di Marca yéene kaay xamle ñu jugee Marca yéene jël AS yéene équipe nationale bu Espagne ak jaloore ji ñu amal démb la journal bi fësal ca wu njëkk wa doy waar nag la ñu amal ca Géorgie dañu leen fekki woon duma leen juróom ñaari bal ci benn match boobee nag Alvaro Morata doxal na ca triplé waaye kenn du ca Olmo Olmo tamit doxal na dugal na ca match boobe gone gi ñu naan Lamine Yamal moom it dugg na ci taarixu Espagne ko waral moo di at yi mu am genn gone mosu koo am football ci équipe nationalu Espagne ba noppi dugal ci ab bit Lamine yemal jamono jii seize ans la am ak cinquante sept jours maanaam fukki at ak juróom benn ak juróom fukki fan ak juróom ñaar te loolee nag benn doomu Espagne mosu koo def loole la surnal bi xam xamle bu dee procureur ub Espagne moom dafa porter plainte Rubiales Rubiales nag moo nekkoon président fédération espagnole de football bi jigéenu Espagne yi jëlee coupe bi dafa amaloon jëf ju ñaaw loole bokk na ci li tax nag procureur bi porter ko plainte agression sexuelle la koy jiiñ kon nag Luis Rubiales ay mbiram jeexagut ndax jamono ji procureur bi moo ko jël ci ay loxoom loole la surnal bii di aas yéene xam xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Lamine Yamal la surnal bi fësal ca wu njëkk wa historique lii de taarix du ko fàtte mukk Lamine Yamal démb dafa def lu mësul am ci footballub Espagne gone gi seize ans képp la am waaye démb dafa dugg ci match ñu ne déetawaay mu doxal ànd ak di dugal ab bit ca matsu boobee loole nag ba footballub Espagne sosoo ak tey jii genn gone mosu koo def kon moom Lamine yemal dugg na ci taarixu footballub Espagne waaye matsu boobee nag neexoon na lool ci waa Espagne juróom ñaari bal ci benn la ñu gañe waa joueur si Alvaro Morata kenn du moom ca matsu boobee loolee la journal bii di sport xamle waaye sport it ñëw ci rawul doomu Espagne bi nag jamono jii benn bëgg-bëgg képp la am mu di lan dem ca Villarreal tàggat leen rawul nag mooy tàggat Real Madrid Castilla maanaam équipe bu ndawub Real de Madrid moom rawul moo leen di tàggat waaye jamono jii li mu bëgg moo di bàyyi waa Real de Madrid dem ca Villarreal doxal ndax club boobee ki leen di tàggat di Kiki Setien dañu koo bëgg a dàq Raoul mi nag lañu bëgg mu wuutu ko foofee loole la sport xam le ñu jugee sport jël Mundo Deportivo équipe nationale bu Espagne le journal bi fësal ca wu njëkk wa récital avec Lamine li ñu jàng ca entraînement ya démb moom la ñu doon tari ca réewu si juróom ñaari bal ci benn la ñu gagné si jamono ji nag poule bi ñu bokk ñoom waa Espagne ñoo jël pee waaye gone gii ñu naan Lamine Yamal nag dugg na ci taarixu footballub Espagne journal bi tamit ñëw na ci Joao Cancelo mi nga xam ne bi mu xaatimee contrat ca Barcelone yàggut ci fàttali Manchester City moo ko able foofee benn saison képp waaye gone gi nag journal bi nee na mooy roi wu passe décisif loolee nag coach yi ko mos a tàggat yépp ñoo ko xamle maanaam jox farandoo wa mu dugal loolee moom daf ko mën lool muy Joao Cancelo foofee ca Barcelone sax ñoo ngi koy gamgam le ak ñaar ñii muy Ronaldinho jaaroon ca Barcelone def fa ay jaloore ak Daniel Alves ñaar ñooñee mënoon nañu paas lool waaye moom mi di Joao Cancelo nag moom it mën naa paas lool kon li war Robert Lewandowski ak ñamu feggoog ca attaque ba moo di ànd ak xarañteef ndax doomu Portugal bi dina leen paas ba ñu doyal loole la surnal bi xam le ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fek fa Corriere dello Sport équipe nationale bu Italie rawatina ki leen di tàggat di Spalletti le journal bi fësal ca wu njëkk wa toujours azuro azuro nag mooy bëla xam ngeen ne équipe nationale bu itali mooy yu bëla la ñuy sol di jongante tey jii nag dañoo am match bu am solo lool soxol euro vingt 2024 Macédoine du Nord la ñuy fekki match boobee dix huit heures quarante cinq lay door ki leen di tàggat di Luciano Spalletti nag match bi mooy nekk matcham bu njëkk ak équipe nationale bu itali waaye doomu itali bi mi ngi wax nee na lim bëgg moo di bégal waa Italie gépp ndax xam na ni jamono ji waa Italie bu rafet li mu bëgg moo di teg bal bi doxal ànd ak équipe nationale bi am ndam lu yaatu te jàpp na ni nag supporters yi dinañu ko jàppale moom Luciano Spalletti moo yëkkati kàddu yooyu li mu bëgg moo di ànd ak équipe national bi dem ca Macédoine du Nord am ndam lu ama am solo ngir mën a dem ca Europe loolee la journal bi xam xamle ñu jugee Corriere dello Sport de milo fekk fa la Gazzetta dello Sport équipe national bu itali rawatina Niccolò Barella la journal bi fësal ca wu njëkk wa Italie jóg nañu de tey jii dinañu ànd ak Spalletti mu football matcham bu njëkk ak équipe nationale bu Italie match Douane du Nord la ñuy jàkkaarlool match boobee dix huit heures quarante cinq lay door Nicolo Barella nag mi ngi wax nee na man Nicolo dama bëgg football bu rafet te ki ma gis di Spalletti li mu bëgg moo di football bu rafet kon jàpp naa ni bal bi dina dund dinañu ko doxal ci terrain bi loolee la Nicolo Barella xamle waaye trêve bi bu jeexee maanaam équipe nationale yi bu ñu jeexalee match yi ñuy amal match bi ñuy xaar foofee ca A derbi lay doon Inter mooy dalal AC Milan ñaari doomu France nag mën naa am ñu jàkkaarloo muy oliver Giroud ak Marcus bu dee oliver Giroud moom bokkam ca derbi boobee wóoragul li ko waral moo di